biyee yëpp a ngi dee. ah moo gën ko. d'accord waaw xaar xaar la passation de la avec votre successeur, comment vous l'avez vécu venons effectivement de procéder à la passation de service avec monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal. Je voudrais rendre grâce à Dieu et au président de la République, Macky Sall, à mes parents, à mes collaborateurs, à tous les Sénégalais, à quelque niveau, qui se situent, qui ont pu me soutenir pendant tout le temps où j'ai pu être dans le gouvernement du Sénégal. Je voudrais insister sur cet aspect qui est l'occasion qui m'a été donnée par le président Macky Sall en me nommant à des postes de responsabilité régalienne et en même temps dans l'attelage gouvernemental au plus haut niveau de cet attelage Premier ministre Sénégal. Je voudrais également dire que cela m'a permis de servir mon pays et de pouvoir donner la mesure de ce qui peut être à ma disposition En rencontrant aujourd'hui, dans le cadre d'une passation de service qui est empreinte de sobriété et de solennité, j'ai pu échanger avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Je voudrais pouvoir le féliciter, lui souhaiter plein dans l'action qu'il aura à mener au profit du Sénégal et des attentes nombreuses qui sont là. et que Dieu le guide dans ce travail exaltant qu'il aura à faire. Je voudrais aussi féliciter le président de la République qui aujourd'hui a la charge de mener les destinées du Sénégal. Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a été élu dès le premier tour le 24 mars 2024. Nous avons eu à le dire, c'est le choix souverain du vitalité de cette démocratie dont la trajectoire dynamique a pu se conclure par trois alternances en 24 ans. C'est une performance remarquable. est un motif de fierté pour notre pays, qui, à chaque étape, peut, quelles que soient les circonstances, choisir les dirigeants qu'il veut, à qui il confie les destinées du pays. Et je voudrais pouvoir dire que cela est dû aussi à la solidité de nos institutions, dont le bon fonctionnement a participé à cette élection transparente et apaisée. mais aussi à la qualité de nos hommes politiques qui ont tous félicité donc les élus, particulièrement le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, mais également le dynamisme de notre société civile et des différents acteurs qui ont été engagés dans le processus électoral qui a pu se dérouler dans les meilleures conditions, les conditions qui ont amené une élection incontestable et incontesté au regard du fait que le résultat a été accepté par tous les acteurs politiques. Sur ce point, je voudrais vous dire qu'au moment de quitter mes fonctions, alors à la tête du gouvernement du Sénégal, mes pensées vont sur toutes les personnes qui m'ont soutenu. Et la personne la plus proche, c'est évidemment mon épouse, mes enfants, mais également mes collaborateurs, les populations de Tamba qui ont marqué un soutien indéfectible à mon endroit, mais aussi l'ensemble du peuple sénégalais qui ont permis de mener ce travail-là. Je dois le dire que je pars avec un sentiment d'avoir fait ma part. Et aujourd'hui, ceux qui ont la responsabilité des destinées de ce pays, je demande aux Tout-Puissants de les aider, de les guider et de les ramener à prendre les décisions Nous amènerons le Sénégal sur le chemin de la prospérité, du renforcement de la paix, de la concorde nationale, de l'unité nationale, bref, de tout ce qui fait la force de notre pays, son trésor qui est la cohésion nationale. di di euh, tey jii bis bu ndax maa ngi ci primature ak le président euh, qui a inspiré le Sénégal parce qu'il a été le choix maa ngi wax euh, en français je vais reprendre en wolof bon tey jii maa ngi primature ak euh, le Premier ministre Ousmane Sonko ñu def bi nga xam ne mooy passation de service def nañ ko dans la sobriété def nañ ko sans folklore ndax lu ci gën a am solo mooy di dañu war a jubli immédiatement ci liggéey bi di ko félicité ndax président de la république Bassirou Diomaye Faye moo ko tàbb pour mu nekk njiitu gouvernement Sénégal liggéey bu am solo la te xam naa ni dina ko def ni mu ko ko santé te ñaan lañ ci am mooy di yàlla dimbale ko assisté ko pour mu jël décision dogal yi nga xam ne dina tax Sénégal gën a jëm kanam di féliciter le président Bassirou Diomaye Faye ndax askan bi moo ko fal ci ay élection yi nga xam ne élection apaisée la maanaam dañ ko def amul benn coow preuve bi ñëpp a ci d'accord ñi nga xam ne ay candidat lañu te ñi nga xam ne tamit eh, dañuy participer ci liggéey bi ci élection bi ba ñu am résultat bi dañu war a am ndegte bu rëy pour suñu démocratie ndax dafa wóor ne que bi dafa am ay fondement dëgg. ci fukki at ak ñeenti am nañu ñetti alternance en deux na que démocratie dafa sàq wane na tamit que le peuple sénégalais dafa am maturité peuple bi nga xam ne askan bi nga xam ne mooy fal mooy fol te def nañ ko le vingt quatre février 24 euh, mars te choix ci président Bassirou Diomaye Faye le tombé maa ngi bëgg euh, remercier le président de la le président Macky Sall mi nga xam ne moom moo tax comme ministre jox ma ay ministères régaliens durant période bi nga xam ne maa ngi ci gouvernement bi ba nommé ma comme premier ministre du Sénégal di remercier tamit ñi nga xam ne yàgg na ma jàppale ci liggéey bi sama soxna samay doom samay xarit samay collaborateur le peuple sénégalais en entier ndax soutenir nañ ma mais ñi nga xam ne tamit ñu ngi ci région de Tambacounda yàgg ma soutenir ci liggéey bi. lu des mooy di ñu ñaan pour les nouvelles autorités premier ministre moo nekk sama wet yàlla yombalal ko liggéey bi mu def ko ni ko peuple sénégalais bëgg pour ñu gën a dem ci li nga xam ne mooy le développement de notre pays en même temps di ko ñaanal eh, ci liggéey bu mel nii nga am gudd fàmm ak wér gu yaram loolu laa leen bëgg wax te di leen réunis aujourd'hui dans le cadre d'une tradition républicaine qui rappelle un principe fondamental, celui de la continuité de l'État, qui transcende les pouvoirs qui se succèdent les différents régimes et qui doit rester au service du peuple, quelle que soit la coloration des équipes qui arrivent. La cérémonie d'aujourd'hui est la matérialisation du choix qui a été porté sur notre modeste par son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar pour coordonner et impulser l'action du gouvernement. nous sommes venus procéder à la transmission de cette lourde responsabilité entre le Premier ministre sortant, M. Sidiki Kaba, et moi-même. C'est une passation qui s'est passée dans de très bonnes conditions et qui nous permet à partir de cet instant de commencer à exercer la responsabilité qui nous a été confiée. Je remercie M. le ministre donc et toutes ses équipes pour l'accueil, uh, pour la qualité des documents de passation qui ont été Je le félicite également pour ces longues années de services à la tête de l'État, au sommet de l'État en tout cas. Et surtout, ces longues années de service irréprochable, puisqu'il a eu à exercer dans différents départements ministériels. Et je n'ai pas souvenance qu'il ait été cité dans autre chose qu'une bonne application. Mon père, mon père. Yàlla vraiment Vale,